àdduna bi yëpp ñu ngi koy na waar ni mu mel noonu yow déjà yow nan lay def ak programme bi nga xam ne dinañ ci am pour déployer ko. seen gis-gis lañ ci am ak lu waral lool ak tamit askan wi jàpp nañ tamit ñoo koy polier. da aan bi dama ca tane dem reportage ba léegi. dañ koy nettoyer dafa amoon entreprise bu gagné woon appel d'offre bi pour bi. mais dafa taxaw parce que y a un problème bi ci posé wu mooy lan xam bi je pense que y a y yi ci nekk. yoo xam ne am na ay ay tuyaux yu ñu war a fatt ak ay dépôts ba dem ba mhm. Thiaroye je pense mhm. yooyu yëpp mu am ay problème ay difficultés est-ce que aujourd'hui faussé wuñu depuis le début par rapport à l'attribution même du marché alors moi c'est c'est le maire qui qui attendait le projet mooy wax mhm. moi c'était un projet phare biñ may dama mujj dem ba dama réer dans le jargon En 2009, quand je suis installé, je me suis d'abord installé au, intéressé au projet. On m'a dit que c'était mm-hmm. toog 5 ans ñu ma c'est imminent ma le projet vient de démarrer <laughs> voilà donc euh, c'est pour vous dire que euh, c'est quand même un projet emblématique mm-hmm. parce que le projet de dépollution de la baie c'est un projet mm-hmm. d'assainissement assainissement boo xamante ne da ngay mettre en place benn réseau d' assainissement buy quitter Hann précisément à la cité ISRA. Mhm. boo xamee route des hydrocarbures. Mhm. dañuy gas. Mhm. dugal yóbbu ko ba Mbao. sur 15 kilomètres dem naa fa reportage boobu mos nañ donc sur 15 kilomètres. alors l'idée mooy toutes les entreprises yuy polluer. recenser nañ leen donc ñuy mettre en place benn unité de pré-traitement. bu ko defee ñu mën leen connecté ñoom ñëpp. Mhm. mais beneen problème bi am mooy canal 6 bis. canal bi xam naa ne ñëpp xam nañ ko. Mhm. mooy canal bi nga xam ne mi ngi jugee Colobane di génne sur la Birane. mooy déverser foofu boobu boo leen fa demee parce que il faut ñu xam aussi lan mooy vocation wu canal à ciel ouvert. Mhm. muy canal 4 miy génn Soumbédioune bu Fass ak bu Hann Bel-Air benn la. bi ñuy tabax Dakar dañ ko aménager de sorte ko bu tawee. ndox mi ci kanaal bi lay jaar dem géej mais malheureusement malheureusement malheureusement canal boobu boo leen demee ngeen xool ko c'est un désastre mi ngi nii donc ay huile la c'est-à-dire que lu ne mi ngi ci biir mm-hmm. canal boobu et projet de dépollution li mu prévoir mooy déjà recenser nañ entreprise yëpp mm-hmm. dañuy assécher kanaal bi mm-hmm. pour ensuite connecter toutes ces entreprises ci intercepteurs yi ce qui est quand même un projet innovant mais loolu dafa ute ak li nga xam ne mooy salte yi ngeen di gis ci géej parce que euh, géej gi dafay rejeter lu bare ce qui veut dire que bari na association et c'est là où je dois féliciter et remercier toutes ces associations yi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu régulièrement dañuy jël des initiatives nettoyer vraiment di def des wàññeeku na sax dafa mel nii waaw mais il y a une forte volonté des populations moi je le dis c'est là où je mm-hmm. félicite les populations parce que tooguñu semaine. Mhm. di régulièrement. Mhm. remercier. même sur les réseaux ah ci doon ah, à un moment donné dem waa ñoom grand soya di organiser. exactement dimanche ñoom soya jaar ah, waa voilà donc jël fa ay pauses yu bëree bëri defoon ci exposé pour un peu sensibiliser. les gens sont très sensibles et nous recevons beaucoup de visites. donc beaucoup d'initiatives de ce point de vue. Mhm. donc vraiment c'est pour vous dire que. ci fan fànn boobu aussi population yi am na benn. Euh, éveil bu ñu am te volonté bi aussi vraiment ñu ngi koy. Euh, des amendes des amendes par rapport. bon au niveau de.